màggal gi yoonu murit yëpp doon amalal soxna maam Seynabou Ndiaye mi nga xam ne mooy waajur maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina te mu nekkoon màggal gu mag goo xam ne nii ay junniy junniy taalibe dañu doon daje ca Ndar Fall ci Jannatul Maxwa màggal nag ki nga xam ne moom moo ko tàmbali woon di ko amal di sëriñ ab lay Fall Ndar tey ji ak njabootam daan ko wéyal ci njiitul sëriñ Cheikh Bintu Fall kilifa gi di fësal ne atum ren ji nag màggal googi dañu koy dakkandal yi ba jëmmi jamono bis bi nga xam ne Eh, sëñ Modou Abdoulaye Fall yàlla su ma doon ay leer da ko daan woote di ko wooteel maam Seynabou Ndiaye mi nga xam ne mooy wéjur maam Cheikh Ibrahima mu ci daan sant maam Jaaratullaay Mariama Bousso wéjuru Xaadimu Rasuul daan ko defee fii ci Touba ci këram gi jantul Mahwa daan ko ànd ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp daan ko ànd ak murit yëpp daan ko ànd ak mboolem jullit ñi ah, bis boobu ni ni kàddu yi nga xam ne jiitu nañ ma noonu rek lañ laa ko santaane noonu laa ko diglee li sëñ Cheikh Abdou laa ko waxee mooy ah, ndigal bis bi ah, aj nan ko ba jëmmi jamono. ginnaaw kàddu yi sëñ Cheikh Bintou Fall yooyu li nag ma ngay fësal ne loolu leen digal mi ngi ko sukkandiku rek ci nga xam ne moom moo di xal général di murit dogal bi nga xam ne nii jël na ko. jamono nag moo am fu mu toll foo xam ne. ndigal li sëriñ bi wax euh, waxtu wu nekk ndigalu sëriñ bi rek lañuy déglu ndax ab bi moom amul genn bëgg lu dégg ndigal jëfe ko euh, tey sëriñ bi li ñu boole ak moom mooy contrat bi ñu boole ak moom ñu ñoo ko wax ñu ngi déglu say ndigal di bàyyi say tere moom Serigne Cheikh Bintou Fall nag yëkkati ay kàddu jëmale ci jàngoroy coronavirus ji nga xam ne nii jàpp na ni àdduna wër këpp jamono ji la laalee waaye itam yëkkati ay ñaan jëmale ko ci jooju de jàngoro. kon bu kenn ku nekk beroo sa barab def ko fi day mel ni jëfewuñ ndigal li dama bëgg kenn ku nekk nga bañ a dajale mbooloo sa kër lépp ndax lépp loo xamante ni bi day indi dajale am mbooloo tax lii ragal ci àdduna bi di law di ma tàbbi ci askan wi loolu ñun kilifa diine yi ñoo ko war a njëkk moytu ñoo ko war a njëkk a dawit ndax nit ñi sunu borom dañoo boole ak ñoom Sëriñ Tuubaa boole ñu ak ñoom ah bu ñu Sëriñ Tuubaa boole ak ñoom Sëriñ Tuubaa waxoon ne Euh, moom day njëriñ loo xam ne ànd ak ginnaaw bii moom ki nga xam ne moom moo jiite Ndar Fall nag di fësal ni li nga xam ne moom moo di màggal googu léegi kenn soppiwul anam bi ñu ko daan amale waaye dañu ko annulé ba file ak jëmmi jamono ngi ñu daal di koy amal. la xew euh, Italie ay huit cent quelques la xew France ay ay trois cent quelques morts la xew ay cent et quelques ba ci tey ji démb bi ma xoolee al arab yi Arabie Saoudite gis am nañ fa quinze kaa yoo xam ne ci mbir mi la kon mbir mi dafa daj àdduna. kon nag liñ ciy musal nga xam ne maanaam ci kàttanu suñu borom ndax yàlla mooy aar mooy sàmm li nga xam ne suñ ko defee mujj si njaboot gi mujj si mooy ñu wax njaboot gi ñu toog seeni kër ñoom ñëpp ba jamono yi jàll bu jamono yi jàllee nag ñu jàppaat bis bi bisu ci sant la sant moom waxtu wu nekk moom Euh, jaam bi ci la war a dëkk. màggal googu li ñu ngi ko jagleeloon soxna maam Seynabou Ndiaye di way juru maam Cheikh Ibrahima faal waaye itam daan ci defaale sant soxna Mariama bu sa maam Jaaratullaa di bëccëgub ñaan jàng xasida ak jàng alxuraan.